mbokki jullit yi fii kulli makaan ñi ngi nuyu ñëpp di ziyaari ñëpp di bal ak ñëpp di bal di ndokkeel tam jullit ñëpp ci atu jullit mu yees mii di war a teru muy atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti gàddaay Yonent bi sallallahu ndokkal googu ak ñaan gi ñu ci jiital suñu kilifa bopp muy cheikh Mouhamadul Muntaqa xafizahu la wara ñaan suñu borom tëbb ko kattan yokk aw fanam ba li mu xalaat liggéey sëriñ bi lépp xalaat ko liggéey ci lislaam yi mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd koog moom di ndokkeel njaboot sëriñ Tuubaa gépp itam ku nekk ñu koy teg ca kane ca bopp kër ga di ndokkeel tam mbokk jullit ñëpp nag kilifa diini ci réew mi yëpp ak mbokk jullit yëpp bi yëpp ak fu ñu mën a nekk ñu ngi ndokkeel jullit ñëpp ci at mi di ñaan su ma tabaraka at mi nu génn lépp loo xam def nañ ko ci ay rëcc ci wala ay ñaawte suñu moom jéggal nu ko lépp loo xam def nañ ko ci ay yiw mu fëlal nu ko te dencal nu ko ci kem ak màggam at mi ngi xam ne mi ngi dugg itam ñu ñaan su moom tabaraka wa taala def ko mu nekk atum jàmm atum xéewal atum naataanga atum dëppoo atum déggoo ci xormatu nabi sallallahu alayhi wasallam ah, atu gàddaay gi nag suñ ko waxee julli di ci dellu ci ay taarixam gàddaay dafa nekk histoire bu rëy bu am solo bu am ci njëlbeenu lislaam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon ko ànd ak saabam ya ridwanullahi alayhim ajmain te mooy bàyyi ko makkatal mukarrama seen suuf ya seen suufu baay ya seen suufu maam ya fa seen moomal yëpp nekkoon seen biir yëpp nekk fa seen njaboot nekk fa ñu meen jaww ja ñu ne fa kupp lépp bàyyi ko fa de ànd yóbbu yóbbaale dara dem ak seen loxo neen jëm ci barab boo xam ni jëm a Munawwara muy barab boo xam ni amuñu fa dara xamuñu fa dara yaakaaruñu fa dara waaye ñu def ko ngir rawal seen pas-pas ak rawale seen diine. kon dara gënut a rey xew-xew wante bi ñu dikkee Madinatu Munawwara itam ñu fekk fi ay seen mbokki jullit muy Ansaar yi ñu daral leen yaatal leen dimbal leen def solidarité bu baax seen diggante ak ñoom ba ñu bokk seen alal bokk seen lépp ba am na ci ñoo xam ne sax àggoon nañ ci wax seen mbokk jullit xoolal sama soxna yi ko ci bëgg ma wàcc ko nga jël ko ma fas ko nga jël ko muy lu rëy loo xam ni kon jullit bi war na ci jullit bi war na ci di roy ba addina di tukki ci wàllu dimbalante ak wàllu bokkoo ah, loolu nag du fi jóge ba mukk muy gàddaay fépp foo xam ne ab dafa nekk te lislaamam dafa yàqoo papam dafa yàqoo dafa roy bàyyam yooyu maam yooyu gaddaay dem foo xam ne diinam dana fa ñoŋe lislaam dana fa ñoŋe te loolu wax nañ ni sax mooy gaddaay gi gën a mag te jullit dafa amul lu ëpp diine pasam lu ëpp diine lislaamam bu ko jaay di ko jënde dara lu teraanga réy ci barab bu fekkee yëg nee na lislaam dafa yàqoo rek dafa war a gàddaay ci barab boobu dafa foo xam ne lislaam dana fa defaroo kon muy bind bu boo xam ne dañ ko war a jële ci saxaaba yi jële ko ci misaasam di ko dund ba ilaa baasi at mu yees nag bu dikkee ab jullit war na ci am ay taxaw seetlu waxuma at mu yees wante ab jullit boo xëyoo ba jant bi so war naa taxaw seetlu ci li mu yendoo lam ci yox yàlla ak lam ci jox leneen bu tëddee ba asamaan war naa xëy guddi gi ci jox yàlla ak lu mu boppam ko nag at mu jeex mu war a lépp seen at mii li ci def ci ay yiw ak li nga xam ne def nga ci sawan yiw kon ak it gëm at dem na ci dundam bu fekkee dund gi dafa nekk ay at yuñ compter ci loxoom mu xam ne at jeex at na at dugg na xam ne kon dundam moom at manqué ci lu a xew muy doon lu mu war a bàyyi xel fu mu toll kon atum bees war na ko jàqaloo ndax la weesu te bari ay ñaawteef lool te bari ay yiw ak muy dugg si te xamagut lu muy indi kon war a ci xalaat bu baax a baax te te te wàcce fa seeni yokk ay jéegum jum ci boromam fa seen tam set ay càgg ay yu bari mu daru ci gannaaw kon si loolu rek mooy kàddu yi liñ ci yokk rek weesuwul nu xam ne nag fàtte jullit ñi ne rawat ñun taalibe ne bu mu xaram ñëwee rek sunu bés ñëw na muy di safar bis boo xam ne jullit ñëpp ko bokk waaye ñun taalibe ñoo ci am ndigalu sëriñ bi muy loo xam ne ñun bis gën ko ci noonu lu ñuy waajal tam lu ko gën a ci ñun amut ndax loo xam ne du ak dàkk du lan ndigalu sëriñ bi la loolu yaakaar naa bu ñu doon seet lu mel ni moom bariwul te mun dafa wax ne képp koo xam ne sa mbég sama mbég sa mbégee waxuma nag ñu aju ci moom na mooy magalal 18 safar kon ñi fàttali mbokk taalibe yëpp ne mu Muharram ñëwee rek donte nun taalibe yi sax xam nañ ne waxtu wu sëñ bi yewee ci ñu tam lu ñu waajal déwén loolu mooy suñ mbir waaye nag fàttali dafa wàññiwul dara fee ne fa zakir inzakaratum xam nañ sax ñu ngi ci waaye ñu xam ne rek moom at mu jot day war a sol mbubb moo xam ne dëggeen moom soloon daaw buñ fa seeni mukk ne lii daa defoon daaw nañ fexe lañ defoon daaw moom liñ def gën liñ def ren di ko gën li may wax ne màggal gi moom aw sant mooy ren dàq daaw mooy sant màggal gi am yor rek lañ naan ren dàq daaw ndax sëñ bi moo mel noonu ndax am yor jullit taal bi nañ ci gën a yeewu te xëy gën a di gën a bari ku nekk itam gis loo ko gën a jaral kon ñu ngi ciy soñaat suñu bopp suñu talib yëpp ñu waajal ko ci ci ci ci pas waajal ko ci doole waajal ko ci am-am waajal ko ci lépp xam ne sunu bisa mooy sunu mooy sunu lépp te lépp luñ ci fàggu rek mën nañ ko ci am luñ tëri ci tam mënuñ ko amee faneen kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di saar ñëpp di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi di ñaan talib itam sunu borom may leen ay wér te may leen kattan may leen tam kàttanu poos ndax li muy wax ne murit moom euh, li ko jig mooy wér ak yor ko xam dafa du toll war di ñuqi fu mu toll kon moom wér yor rek ko war ko ñu ñaantal bi yëpp ñu wér te yor kon sibra ñu lay ndokkeel bu baax yow itam ak sëñ Fallu di teg sunu ziar ak sunu ndokkeel ci sa loxo nga tegal ñu loxoy Cheikh bu baax ak sunu cant ci moom ak sunu ñaan ndax wax yàlla liggéey ba am ko tàmbali ak léegi fuñ gees rek gis nañ ko mu jàpp ci jàppin mu rafet woo xam ne waxtu bu nekk di gën a dolliku di gën a rafet di gën a yees di gën a mat kon ñu ngi ko ñaan moom itam mu ko yéene àggale rek moom àggale ci barke Sëñ Tuubaa moom li mu àndal liggéey bi yëpp kon ñu ngi sant jullit ñëpp di ndokkeel jullit ñëpp saa jullit ñëpp di naan jullit ñëpp jàmm ak tawfeex suñu boole def jàmm ci réew mi def ko ci mboolem ci mboolem àddina bi fi jullit nekk rek ak ak ak mboolem àddina bi su def fi jàmm. di fi salaam ndax jàmm moom ci li ñëpp xaj ko yàlla subhaanahu wa taala saara jàmm fépp Cheikh Amadou Fadal wax ne yàlla ñaan sutura moom malaan la maanaam maanaam maanaam muur luy metti nañu ñaan jàmm waaw Mbàkke ñaan a sutura sutura malaan rek la maanaam muur metti nañ ñaan jàmm rek kon yàlla subhaanahu fi jàmm ci réew mi da ko ci àddina bépp asalaamaaleykum wa